aca euh, jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfalaat bu baax amaat nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax niñ ko faral di def ak kilifa yëpp tey ñu fas yéene na dalaat beneen kilifa di sëriñ nga xam ne nag fii ci biir site bi moom kenn du ko fi présenté ti ndax xam nañ ko fi bu baax a baax li wër réew mi bitim réew rawatina biir diaspora bi ñu koy tëddee sëriñ Moustapha Dramé aha kooku mooy borom yàllaay kese sëñ Moustapha Dramé dañuy bàyyi nga nuyoog mbokku askan bi balaa ñu dugg ci suñu biir question yaatal ci lépp loo xam ne war nañ cee waxtaane tey auzu billahi samin xalim min asheytaani rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci ndine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla ci mboolem xeetu cant yi yi nga xam ne ñeent la waaye yëpp mën nga ko rafaa ci benn cant mooy cant gi yàlla sant boppam subhaanahu wa taala gannaaw sant yooyu nag ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yan yàlla defal ñëpp mucc ak mucc le ci barke yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci maqaama si Ahmad Tidiane Serif radiyallaahu anhu ak si mboolem wali yàlla yi ñu ngi jox ñëpp seen wàccuwaay képp ko sitaan réew mi nag ñeenti fee yeewoo góor ak jigéen mag ak ndaw ku ci ne ci ñoom foo mën na ne ci loo mën na ne yan yàlla barkeel ko dafa la xewal ak sutura ak naataange maa nga xabul làmmeñu waliyu yàlla yi xam ne lu ñam nangu làmmeñu wala xabbee ci kanamu yàlla di leen ñaanal loolu yan yaa defal leen ko ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëriñ euh, Moustapha Dramé borom yàlla yi kay ñu ngi lay bu baax am nañu kontaan ak mbégte bu baax a baax tey nag xam naa balaa maa tàmbali xam naa vidéo bi ñu mujj a def nag bëri na coow coow li bëri na nit ñaa ngi koy waxtaane fu ma kii nag ñu ne ma list bi moom list bi liste bi tiital na leen de dañ moom damaa war a bàyyi nga lim ko ma ne leen ëpp naa am foofu dañ fiy dellusiwaat ndax euh, depuis ba nga ma annoncé jox ma publication maanaam juróom-ñaar ñooñ fi war a dëddu lii bokk ci kilifa diine ak kilifaada yàggul dara gis nañu député bi fi jóge woon bi ma la laajee nga ne ma ci la bokkoon. Euh, man nag balaa maa dellusiwaat damay jaale damay jaale képp koo xam ne mbokk suñu mbokk jullit la ñun ndax daa am benn tiisu naqar bu ñu dab mu di benn xibaar mu di doomi Baye ñas ñu koy tuddee soxna Mariama ñas moom ñu ngi koy jaale ñëpp rawatina yéen ñi di koy jaale ñi nga xam ne waa Kaolack la rawatina ñëpp ñoo xam ne ay jullit lañ euh, xibaar boobu dab ñu yow lan nga ci àddu. di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sama papa moom waxoon ne ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un firim zaay bi ñëpp xam nañ ko waaye firim baatin mi bu ko doomu aadama yi noonu jàkk rek dañu xam ne àdduna amul solo ndax li koy xam mooy dafa am foo ne woon fan la ci sa biiru ndey nga jógee fa ñëw ñu ne gane ñu ne nga ñëw ne fi ab bu gàtt nga jóge fi dellu ñu ne fan nga dellu ñu ne ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun aay bi sax temps ba ñu ko mayut waaye mu nga commencé ci walla napp lu wan nakum fan ay ba commencé daano ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla di ñu ne ñu dina am ñeenti mbir wala juróom yoo xam ne tout le temps dina leen traversé ci seeni dund jamono bi ngeen dund la loolu booy dund la waaye bokkut ak nag bi nga xam ne bu la dalee ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mooy dellu gi yàlla delloowaat sa ruu gi ci boppam jël suuf ci delloo ko ci minaa xalaqnaakum nga waxoon ci alquran wa fiihaa nu'iidukum nga wa minhaa muxrajakum uxraa ba am ayib daanu mm-hmm. dellu googa bokkul ak dellu gi sa ruu gi dellu ci yàlla bu doomu aadama bu ne këtt na jonn ne faatu rek ci ngay dogg dégg baatu dëgg ndax looy dégg inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñëpp di doog a nangu ne ñu ñëpp ci yàlla leen jógee ca ñu delluwaat te alors que bay dund jógee ci yàlla ñëw am benn message bu yàlla wan sa ruux gi muy du wét nga bëgg koy wax muy lis yi ma la wax ñu ne ki koy wax ab doomu aadama la génne ma ci yàlla génne ma ci borom xam-xam yi génne ma ci nit yàlla yi fekk suñ ko duñ gëm te alors que ne su ma deewoon tey ñu ne inna wa inna ilayhi raaji'uun te doo ko nangu ne ndeke man Moustapha Dramé mii toog ci yàlla laa jóge woon kon dellu naa ci moom bi may dund nag ak mat mat doomu aadama tax ñu génne ma ci yàlla. moo tax lu jar a seetal la doomu aadama ñàkkut solo ci biir loolu ci la suñu wajuru jigéen di suñu maam di suñu sët di doom ci Maolana Cheikh al Islam bàyyi soxna Mariama mm-hmm. ku mokkal alquran la. dama ko daan istat yi lu bëree bari fu muy toogee di jàng alquran. ñu ngi leen koy jaale. Hmm. tabax ay école dafa jàngal ay xale alquran. di góor di jigéen ju góor yu bari nag. Hmm. bëri na góor ñu yor ay sant yu rëy buñ toogoon ci kanamu soxna Mariama mu daane leen ci masala kooku tey mooy kan doy mu wàllu si di lam bàyyi di kan. di xafisul quran bi di kan di xaafis bi di kan nekk mu xalim nekk mu hakim ba nekk ba noppi nag fees dal nekk xarif xari maanaam xarifin billaah lu mosu teg ba ci àdduna xam na la ci yàlla doon maanaam li nga jàng ci alquran yàlla naan walillaahi lasmaul husna wa sifaati gi moom lépp lu mosu bët ci àdduna xam na nu ci yàlla nekkee ak nu ci melokaane yàlla yi nekkee te kooku moom la yàlla suma borom bi subhaanahu wa taala jël ñu ngi koy jaale mm. mboolem ñu ngi koy jaale mboolem waa Nigeria ñu ngi koy jaale waa Gambi di ko jaale pays bu mag ba xadratu ilaahiya bu mag ba di pays Mawlana a Islam Baye ba di ko jaale ñëpp di ko jaale sama yenn xarit yu bari yoo xam ne tale Mawlana Cheikh Islam Baye lañ ma euh, nekk samay wóllëre ñoom Matar Soxna ak ñu mel noonu ñëpp taalibe moo daana bàyyi leen ñu leen di ziare leen jox seen wàccu waaye di leen euh, masuwu coono mhm. ci naqar bi nga xam ne maanaam wàcc na suñ kaw waaw ñu ngi leen koy jaale ñu ngi koy jaale képp koo xam ne mbokkam la mais des na acca dem man naqar bu tegee ci ñooñu diine dama ciy wax ndànk ba daloon ci politiciens ci laa doo gën a mën a wax waaye des na foofu laay ñëw dama ne la mhm. yàlla léppam film la film chef de bande yi ci mujjantalu film bi la ñuy dee. Hmm? wasaan sa band ñetti band yi daqa xeex bu film bi waaye jeex ci li ñuy doog ci li ñuy doog a dee mais tant que film baa ngi doog a neex nekk ay théâtre ñoom ñu fi rek gars yi faju dara yi ñooy dee ñu teg ko dara ñooy dee. mais xam nga sa set moor yi mu ngi lëmb réew mi tiital la nit ñi ñu ngi nii keneen waddaat. barki alquranul karim yor naa sirru boo xam ne man mënu ma koo wax. ak dayoo mu mënu ma ko wax parce que boo ko waxee dafa mel ni da ngay bàkku waaye man xaj bi toog di ma seetaan sax xaj bi toog di ma seetaan xaj bi. waaye seen non dama lay waxal rek. li nga bëgg wax xaj bi toog ma seetaan sax xam na yàlla may na ma xaj bi. mais xaj bi la waxuma la nit ko xam xel. billaahi kitaab bi gis nga juróom-ñaar li ma waxoon ci moor nañ dem on Eh, nañ dem nañ dem nañ dem. Eh, en tout cas daal xale moom jaxasoo na moom. barki alquranul karim bis bu dalee si ñooñu politiciens yi. ah ci dëdd. déedéet boobu ci wàllu politique la ci langue politique la bokk de. Olof Ndiaye danaa wax bu yàggee dee suuf comme wax naa ko waxaat ko bàyyi ñu jàllale bi kàtt gi mooy li si kanam réew li bët. weneen te xooxaan tekki tekkim tuubee la olof di wax te li di fànkeen di ko jeex. nañ ne ba ci kanam incha allah taala jaale ci beneen point bi. jërëjëf jërëjëf kon dégg ngeen ko ñu ngi koy jaale ñëpp àdduna ci gis nga moom it jaale na ko ay naataangoom tey nag sëñ Moustapha daam fu mu bëgg a duggee ndax keroog am na loo ñu indiloon ci benn sirru wax ci li ci nekk mbóot yeeg lépp tey dañoo bëgg nga ñu benn secret boo xam ne ci alxuraan lan nga ñu ci indil tey ci alxuraan ak ni mu yaatoo ban secret nga ñu ci indil tey laaj biir ci jàngale ci maye ci xam-xam. tey nag damaa feebar tey fi mu tëdd waxee yow billaahi maa ngi bëgg dee feebar. yow léegi nga sama yaram sama yaram baa ngi tàng jër dama ko dama ko mënul ñàkk def gisoo sama garab yi may naan man. Euh, lépp dëgërlu rek sëñ bi. amul gisoo mhm. sama garab yi may naan. dëgërlu rek. maanaam. maanaam dama dama dama dama dama feebar. da feebar nga wax. sonn billaahi. gars yi da nee kuy kuy joxe liste. <laughs> baadu gars yi dañ. yaay eh, mun maa jëkku man kenn may jëkku mooy ki jëkku ñépp kum jëkku wërloon la ma day ñaag ba ca kaw mu dolli ci suuf mooy sumbala subhanahu wa taala mbër ma fi dégg mu daan moo daan dama ne la hmm. dama leen fi joxoon secret sirru fatiha hmm. am na sax ñu xam nasaraar xam baati ne ma li li nga def fatiha waroo ko def faatiya ndax secret nga génne ci fatiha yoo xam ne ci biir néeg la ko ma ngi daan joxee waroo ko jox ci mbedd mi ma ne ko nit ñi gëmatul dara li liñ daan nëbbu ci liñ daan nëbbu ci néeg bi foog ñu génne ko ci mbedd mi ni ñu xam ko parce que mooy tax ñu jëlu ci yàlla. Mhm. damay jox secret xul wala waxat. waaw tey loolu nga indi tey. waaw xul wala waxat. acca barki alquran moo leen sirru yi doomu ci gémmiñam xamut bu <coughs> que. dafa bokk sax ci boo bëgg génne ko ci yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala il faut nga xam maanaa xul wala waxat boo ko firee lan lay benn la ci boo bëggee xam yàlla kenn gi mu moom kenn képp foog nga mën a firi xul xula waxam soo bëggee loo booleem ko fëgg dëndam ne may yàlla jàng ko xul xula waxam soo bëggee gis kuy bokkaale ci yàlla yëg ne moom dara la ku réeréelu mhm. ne xam nga ndey xam nga bàyyi te yàlla ngi ni amut ko loolu jàng ko xul axam kudut kudut suñu borom bi subhanahu wa taala mhm. kudut gi laal na la xuloo la waxat dafa am ay sirru sirru yu yéeme yéeme yéeme xuloo la waxat xuloo waxat am na ñu ko jàng cinq cent vingt neuf li mu iftah lii gi sàkk ni ko ndimbal pour yàlla ubbi leen am na xam mm-hmm. na ñu ko jàng tamit ci beneen beneen lim di si suma yàlla subhaanahu wa taala pour yàlla may leen ñu gudd fan mos naa laa wax fii ne la daaw xama daaw jëg na la mm-hmm. am na secret xuloo waxat boo xam ne nii ci wàllu gudd fan lay dox boo koy jàng da ngay jël cent vingt neuf carrière carrière def ko sa nekk lal ko ci malaanu perkal bu weex tar comme bi ma bi ma bi ma musóoroon yi mhm. nga ne man yàlla at yi laa bëgg a dund nga génnee at yi nga bëgg dundu dund par exemple ma ne man am naa trente ans ma génnee fanweer yi tegee na le mu ne cent mhm. day def day def neuf cent quatre-vingt-dix-neuf lay des tolloog dëppoog ismana la xam yàlla yi donte ismila sam téeméer la waaye beneen bi gars yi ne ku xam si xaraam na safara nga jël ko ne yàlla juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent yi dëppoog sa ismila laxasam dëppoog sa tur yi màgg yi sell yi ñëpp xam mm-hmm. moo la bëgg a dund nga toog naafale ñeent rakk rakk bu njëkk bi nga jàng fukki xul wala waxat ak benn ñaaru rakk bi nga jàng ñaar fukki xul ñaar nga sërmal ñetteelu rakk bi nga jàng fanweeri xul wala waxat ak ñett ñeenteelu rakk bi ñëw nga jàng ñeent fukki xul wala waxat ak ñeent soo paree nga sëlmal nga jël benn carrière benn xoor bi. mooy xeer yu xeer bi. Hmm. nga jàng ci benn Fatiha benn xula at ba juróom-ñeent fukki tur juróom-ñeent fukki xeer yi ak juróom-ñeent fukki yëpp mat. Hmm. du ko di nga bëgg a dund. nga laxasee ko maaw ni perkal gi. nga sa digg kër suul ko fa. bi nee hmm. dafa am benn mbokk mu ne ma wàññil gëñ yi gëñ gëñ. moo tax bëgguma gëñ sama benn xarit. Ablaye Mbow. waaw <laughs> voilà. Uh-huh. Euh, nga suul ko sa biir kër. Uh-huh. kenn du la gaaw di jëtti. ci sulmaani ak ci nuraani te foo ñàkk du fa. waa dañu bëri leen dëj mais pour ñu kii la moom dina yéex. Euh, yàlla waxoon yàlla bam nammee nag pour nit ñi gàtt fan dafa jël ndagaaru def ko këru ndagaaru. Hmm? kereel ñu ay karo karo karo yi nga xam ne ni kërëb lañ karo def étage air plus foo gas suul ma war na yow dafa yàgg dangay dem da ngay wujj subhanahu wa taala léegi boo demee saalum nag ci xàll ba moo tax ku fi ku ci ñàkk ba bàyyi sa village amoo bàttin nit ñi ci village la ñuy samp doog a ñëw ci biir Ndakaaru bi xam ne kenn du mën a dara tus waaw fii de ku fi jommi moom foofu foofu ngay jubalaat eh, eh, foofu mbir moom foofu ba mu tudd ci a a ñëw doog yoon nekk ay dem gis nga loolu. Eh. waaw loolu loolu xuloo laaw axat la. baat bi mu wax léegi du ma ko waxaat wax nga lu rëy de. waaw du ma ko waxaat de. sow yàlla kum rëcc de. nga ne kum la. du ci jaar dama ne la. lool loolu benn secret secret la ci xuloo axat. Mhm. xam na tim su bëggee am daraja daraja nga def waxtu julli juróom boo julli fi nga toog. Mhm. nga jàng fukki xuloo laaw axat ak ñaar. yéene si ñaar subhaanahu wa taala ne ko yàlla maa ngi lay ñaan daraja. Mhm. ñaan la wilaaya ñaan la maqama ñaan la wërsëg wu yaatu lool yàlla yal nga musal ci yàqu ak yàqule gàtt fan déggu ñaaw musiba balaa yàlla yal nga musal ci pexem jinne ci pexem doomu aadama bon mhm. ci fukki xol la andi ak ñaari waxtu julli juróom boo jullee nga saxoo ko ñaan ko yàlla fi nga toog bala ngaa jóg mhm. billahi wal kitaabi ko bokkat at mu ngeen judd mu ne mhm. di nga ko jaale ci suñu borom subhanahu wa taala xoola amat xoola amat dafa yéeme xoola amat xam na ñu ko wax sirru nafaqatul yow mi maanaam sirru dépasse am na ñu ko wax sirru dépasse am na ñoo xam ne dañ koy def fi ñu sigar fi ñu toog fi ñu toog maanaam maanaam bu fekkee yow amoo wërsëg nga bëgg lekk di baawaan ci sa kër lekk bu neex bu ne maanaam sa kër mu fi tuur mm-hmm. secret boobu si xoolaa lañ ko liggéey mooy fi nit ñi toog di lekk tout le temps buñ jógee nga jàng fa fukki xolu laa ak ñaar ñaar suma wax taala dund nga baawaan fa xalaa mm-hmm. kulli dana def baawaan ndax cooli bët na de mais xul xool laa moo gën a om ci mboolem saari alxuraan yi xoolaat moom mooy kat dante yàlla xam nga sama kat dante bi dañ naan diw diw ma bàyyi diw mooy yaayam kat dante yàlla xululaaw ahad la mhm. xaarif yi xaarif yi bi laay dañ ko faral di wax lu xam na tim ci secret xululaaw ahad boo xam ne mhm. boo bëggee duma nit da koy duma waaye boobu dafa xawal laal sulmaani yu mooy da ngay sigar sept cent maanaam sept cent soixante-sept mhm. set la moo jàpp baat onze 777. 777 mhm. moo jàpp onze. am na ñoo xam ne dañuy dem ci baameel bu bees baameel bu bees tàq laa wax. boo mhm. xam ne borom da nga maanaam defagut vingt quatre ci biir suuf nga tibb ci suuf si ca kaw baameel ba. Hmm? waaw eh gars yi lu ñuy def. ñëw sa biir néeg toog sigar li ilaa si yor xaw laa waxat li mu onze. 777 yéen ci ne diw mii nekk ci man di ma fexeel. yaa suma subhana maa ngi lay ñaan kii ñu suul même pas vingt quatre heures bu mu raw diw ci bàmmeel soo paree nga jël suuf soosu noonu laxasee ko malaan gu ñun kukk suul ko ci mbedd mu ñëpp di jaar maanaam suul ko ci suul mbedd mu ñëpp di jaar du yàgg kooku ñëpp jaar fa dem jaar ji ko suñu borom dem jaale ji ko ay mbokkam moo tax ñu ne boobu dafa xaw a laal euh, sunu maam dafa xaw a ñàkk ngëm yàlla. Mm-hmm. waaye li li ñu naan lépp yàlla mu ngi ci alquran. Mm-hmm. loolu noonu ci lay génnaat. xam mm-hmm. na tamit benn surtout boo xam ne sa doom dafa judd tag nga njëkk koo xool si bët nga jàng benn fatiha benn saatul fatihi jàng xul laa wax juróom-ñaari yoon la ko ci boppam bi doo ko wax ne ah doo ko yëgal nit ñi doo ko wax bala ko wax kenn noonu ngay def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñëpp dañ ko xam. lu siiw ci lu baax laa wax de wax ma xam wax ma xam ko ci misid de ci lu baax lañ ko xam. day dem ba ci secret xur laa waxaat da ngay gis ne xam na firim baati muñ ko firi di dëppoog juróom-ñaari pays yàlla yi da ngay gis ñu ne la euh, ñi nga xam ne yàlla fi ne may ñu nekk ñu nekk maanaam nitu maxrifa ñoo xam ne lu ñu gis xam ko dañuy wax ne seen ruux yi bu ko yàlla nammee wàccee ci biir jëmi doomu aadama gannaaw bu mu jóg xalum arawaa day jaar pays laawut bu fa jaaree ñu raxas ñu raxas ruux gi seggiwaat ko ba noppi nag doo ko wal ci biir ci biiru jigéen. Mhm. dañ ne kooku bu juddee borom day nekk intelligent maanaam lu mu gis da koy xam. Mhm. neex quoi. lu mu gis da koy xam am na. xale ina abi taalib loolu la ko yàlla may. est-ce que xam nga ne néew na koo gis ku tuddoo ku tuddoo xale te du te du te du nekk intelligent xam nga loolu est-ce foofu fekk ku tudd xale yi yàlla dana ko xaasal ca la mu xaasaloon xale ina abi taalib mm. jox ko. boo demee ci école yi en ligne yi dañuy dóor gars yi nii ci daar yi en ligne yi <laughs> mm. dañuy def gars yi. tarkalla terrain bi. en ligne yi dañuy def gaa yi. tarkalla basket bi nii. moo tax Aliou Cissé moo tax Aliou Cissé na ko na ko yi bàyyi ci équipe nationale bi. Aliou Cissé mel ni sirru la sirru. barke rasulillahi xam nga loolu sax du son programme mais euh, dama ñëw ci ci sirru rek ba ba yegg ci waxaale ko Sénégal dañoo tax ba waxee ci ni lu baax ñu ne ah, da koy tagg juróom-ñaari maam. amoon Aliou man lijjantiwu ma ko nañ ko gars yi bàyyi ci équipe nationale bi Aliou Cissé Aliou Cissé. Hmm. mais gars yi nee nañ mën a am sens. Eh, waaw ma ne la nañ essayé El Hadj ma ne. waaw mbooleem koo dégg ci àdduna Sénégal gii nga tax nga ne Aliou di coach bu baax da nga añaan ndax jël tubaab ñëw di ko si réew mi di ko fayal mosula andi lu baax. kon da ngay seetaan football. man man damay siifar toutes les actualités man. Hmm. dinaa ñëw ci dinaa ñëw yow ci 24 décembre bi fi ma demoon doon xool xale jigéen yu góor yi fi cage yi fi nekkee saay-saay yi dinaa dinaa la ko wax. lan dinaa ci ñëw la ko. yow yow xamoo gars yi saay-saay lañ. xaaral daam fu may ñëw sax jërëjëf sëñ Moussa. xaaral waaw dama ne la Aliou Cissé. Mhm. nañ ko bàyyi ci équipe nationale bi. nañ ko ci bàyyi. nee naa la seet naa Aliou Aliou foo ko fekk. billaahi ut kitaab bi du yor dara muy des ginnaaw du def dara muy dellu ginnaaw te lu mu yor yàlla ruuf ca dara jaay barkeeb Cheikh Naxal yi. waaye de laaj ko laaj ko imaam imaam imaam Alioune Cissé. ku fi indi ndam lañ bëgg de ku fi indi. imaam xoolal Medina Baye maanaam foo leen dugal ñu ñu yàlla yàlla ci barke loolu jut na mboolem juddoo doom dama ku ku ku ku bañ te da nga nañ fi indi El Hadj Diouf indi fi kenn te te te attention. Hmm, euh, bu yàggul maa moom bokk na benn restaurant di di lekk waaye gisul ma xawul ma. Ngaparou yaa na Ngaparou la Ngaparou Ngaparou. Ngaparou nga côté Mbour la Ngaparou semaine bi passée dama dama mu dem foofu am ku ma gis ku ma seeti añ jë dem ci restaurant bi di añ fekk naa ko fa waaye maa ngi gis ba ruq ba ne la mu nga beru ma maa ngi nekk sama yëf bopp. mu pe jog dem ma ma ne ma pare jóg dem mais restaurant boobu cher na. restaurant boobu ah ñu kañ bu ñu dee ñoom it xam naa ne. baax na jërëjëf sëñ Moustapha sëñ Moustapha daam fu may dugg nag ndax fi may dugg dinaa fa sawar pour ma dugg fa ndax dañoo seetlu temps yëpp yaa ngi dal ci musiciens yi to kenn xamul nan la ni nga leen di daale mel ni koo xam ne dañoo rey sa taaw wala lan la ndax say mbokk la ñu tëg lu ne it nuñ koy def ci réew mi fan yee rek yaa ngi dal ci ñoom mujj nañ cee def benn émission bi ñu bëggee def seen benn manifestation bi te ministre bi nanguwul ndax 24 euh, yi dañ cee bëggoon a yëngu-yëngal ak 31 yi te mujj leen koo nangu ma seetlu ci leen euh, bërki moo Njaay yàggu dara président bi euh, yëkkati nañu ñoom ñëpp ñi nga yëkkatu ci côté culturel bi ak côté musique beeg art bi jox nañ leen deux millions cinq cent yow kon looy wax bi deux milliards cent dama deux milliards cinq cent lañ leen jox yow bi nga déggee wax jii nii te doon dal seen kaw kon yow lan ngay wax lan ngay àddu bala maa ñëw ci deux milliards cinq cent yi dañ ko séq ak ku garaaw muy Macky Sall milliards lañ leen jox de muy Macky Sall waaye du leen jëriñ dara bëriwut quoi acca ñu dem euh, xam nga ñoom nee naa lu ma leen wàcc tànk 31 décembre passé wu. marka maanaam markaas ala rek laa leen def. waaye luñ la def lan lañ la def. dañoo nekk ci lu neexul yàlla nekk ci di yàq xale yu jigéen yi xale yu góor yi nga xam ni seen kilifa yi matuñ kilifa. sëñ Moustapha il faut que nag ma orienté. gis nga réew mi nag li fi yàq li fi yàq ak li fi def xale yi. suñ ko doon wax. daa nga dégg fii nangam violé na sëriñ nangam imaam nangam lu ne daa nga ko fi dégg est-ce que dégg nga ci lu bëri ci musiciens yi nga nekk fii di leen di. Eh, ma ne benn sëriñ ah. benn benn sëriñ most violé xam nga lu am benn waaye bu mbuwoo sëriñ dem violé ko du sëriñ. ñun sëriñ lañ kooku sëriñ lañ ñu wax. te sax imaam lañ ñu wax ay ustaas lañ ñu wax ñu fi ëmbal biiral. man de man daal maa ngi li koy wax ma Moustapha Dramé yàlla kese maa ngi koy wax. violé wu ma jigéen doxaanu ma xale bu jigéen deewu ma benn xale bu jigéen maa ngi koy wax avec responsabilité wala déglu ma sëriñ sëriñ ñi ngay wax noonu yëpp ñoo xam ni sëriñ ñi dañoo amul moyen rek dañoo dañoo dañoo nekk doxaankat mais musiciens yi lu xaram la ñuy def est-ce que xam ngeen temps yi xam naa benn personnalité boo xam ne dafa amul benn xale bu jigéen ba noppi naan ko ba noppi naan ko naan ko. da ngay euh, fay ba barki rasulillahi barki am na benn journaliste boo xam ne dafa ëmbal benn xale bu jigéen. Ah, topp ko naan ko yàq biir bi da ngay fayu rek li ma wax sa mbokk sëriñ si di ñaan rek yéen journaliste yi sax yéen da ngeen nekkul réew. waaw leen deux milliards cinq cent. da nga leen maanaam doo leen wàcc. musiciens yi barki xel Quraan laa la wax de ba léegi dañoo échec. gis nga deux milliards yooyu gis nga Macky Sall politicien la. est ce que ma ne mbooleem ñi mosa moo ci a garaaw xamul tax. Hmm, lu tas na yàq na politiciens yi yàq na musiciens yi xam xamul dama yàq leen xam nga tey boo fekkee musiciens yi mbalax maa ne rappeurs yi ñoom ñëpp nga boole leen deux milliards cinq cent indi nga coow indi nga ak tàqalikoo ci seen biir ndax xaalis fu mu judd coow judd fa xam nga bakki démb xoote woon nañ xoote woon nañ manifeste xam nañu demoon ay quelques nit gis nga xaalis bi bis buñ si jotee ñoom xam nga jotaguñ ci buñ si jotee bu ñu war a rassemblement ñoom ñett ñi sax duñ dem parce que day fekk xaalis bi tasaare na leen kenn ku nekk ñaangoo njott ci sa morom moo tax Macky Sall li luñ jox alalu safara la buñ ko lekkee tax ko ba ma xeebati ma gën a garaaw nga nekk alalu lan la leen maanaam alalu safara la maanaam alalu safara mooy lim leen jox ñoom buñ ko lekkee comme ko lekk xaw safara dañuy tàqali ko hmm? deux yow mi sa maayo bu ñu ko boloon fii léegi tey ñu laale maa yow deux milliards <laughs> cinq cent millions bi dégg naa la ñoom politiciens yi ñuy ñuy ak ak la ñuy ñëw déglu ma man gi li maa génn nii sama statut dafa bëri musicien yoo xam ne damay lire seen seen statut Issa may gis. dama leen xam de am na si ñoo xam ne samay xarit lañ sëriñ bi moom mais faalu ma leen. Mm-hmm. wuy ma man kay jëw bi laay wax. dama ne leen de na ñoom ñoo xam ne ñu ngi nekk naan la moo tax bi ñu demee oote place de l'Indépendance pour manifester wu lu tax yu si dul ñëwut ak con sekk baaw maal ñu ngi koy wax ñoom laa wax ñu ngi koy wax laa wax ñoom ñu ngi koy wax. te yu si mm-hmm. du ñëw parce que loolu du fulla li tax a dem naan bàyyi leen ñu 24 ans ñu tëgg ak 30 ans ko mais ñëpp seen présence daa mënta nekk képp ku ca dem ku nekk da ngay wàccee sa personnalité. da ngay mën a nekk ci dara li ñu doon cek lu mu def benn site internet lu ubbi rek di invité ay ñoom Pawlish Mbaye ak ñooñu ñuy wax lu ñor lu ñor parce que xam na ne loolu du fulla du fayda te nit ku nekk am na fu ñu xaar ñoom xaaruñu leen ci loolu. te barke alquranul karim 24 décembre bii bari na xal yu jigéen yoo xam ne ak xale yu góor yoo xam ne mooy ne yàlla te ak cause de loolu moo tax lépp engagement bi ñoom ñoom ñoom ñoom musiciens ñoom la ko sax. noo def ba xam ko ndax sànq dégg naa nga wax ba naan 24 yi yow da ngaa foofu. xam nga xam nga am na benn tefesu géej goo xam ne fii Ndakaaru ñu baree bari dañ ma fay gis par guddi su génn géej fii ci Ndakaaru goo xam ne chaque jour que jëfee nii ngi dañ ma fay gis te boo fay dem diggante deux heures vingt deux heures demi ba trois heures trente quatre heures moins. fa ngay nekk ba trois du matin. yow da nga yaakaar ne jaamu yàlla ak sama ak sama wax ju bëri ji da nga yaakaar ne baax bopp nii li maa gis nii yàlla laa yaakaar de ci la mel ne waaye bu ma duggee sama néeg nii lépp lu ma xam ne ba ma ko cigaree mucc ci jaami yàlla yi danaa ko def. kaf ma ci réew ma ci nag. jaami yàlla def jaami yàlla yi di lay bëggee bëgg la di lay safoo di lay titroo. ñi ma bëgg sax ñu amul problème ñooñu ñoom maa leen gën a bëgg. waaye dama ne la heure boobu bi ma bi ma retourné trois heures du matin. xanaa waaw ma laaj la. bi ma retourné doo doo doo ñaanal mbaa doo ñaan ci yàlla nga ñaanal musiciens yi mbaa ndax xam naa comme que yàlla may na la porteur de voix nga ñu mën leen a bàyyi ndax ñu mën a yëngal sax yëngu-yëngal ci 31 yi. maanaam man ma toog ñaan naa Macky Sall yàlla nga bàyyi gars yi bàyyi gars yi pour ñu def ñu ñu ñu ñu kii ñu def 30 noo ko mën a defee rek <laughs> maa ngi koy gën a encouragé xoolal li Pape Diouf xam nga tëgg na biig Pape Diouf. vingt cinq ans tëgg na xam nga yëgoo yooyu information yëgoo ko. <laughs> sama sëriñ bi man daal Pape Diouf tëgg na biig soirée la tëgg biig Pape Diouf tëgg na biig Pape te day garaaw mooy sama gars yi dañuy tëgg ñoom Momo Dieng sama xarit boobu day tëgg waaw day tëgg ñoom gars yi dañuy tëgg de parce que comme Pape Diouf dëgg tëgg. ah te ñoom suñ tëggee ba noppi man damay organiser sama suñu Cheikh na Tidiane su ma ci paree xam naa sama benn xarit moom it day organiser guddi yéen bi moo tax affaire bi dafa indi problème moo tax état d'urgence couvre-feu bu fi dikkaatoon nga xam ne nii musiciens dañoo yàq réew mi. déet nag yàq. yàq ne réew mi léegi bi gis nga ñu ngi dugg si loo xam ne nañ dem ba ci kanam. nañ bañ a dem jaamu ji yàlla te liggéey. waaw xam nga barki alquraanul karim. man li may wax nii. Mhm. ñenn si ñoom ñu bëri si ñoom samay xarit lañ. xam ne si ñoo xam ne damay bokk ñoom lekk reer mais dëgg ba jor dañ leen koy wax. dëgg amul xarit dëgg yàlla ko moom. lu wér acca jërëjëf sëñ Moustapha am na foo xam ni xalaatuma waxtaan ba pare te dugguma ndax fa laay tëjee tey sama émission. Euh, li ci des bëreetut euh, at mi jeex na ba pare ñu ngi dëgg dëgmal 31 euh, décembre bi foofu bëggoon naa xam ana lan nga gis maanaam lan ngay xaar ci discours président Macky Sall lan ko ci xaar. li may xaar ci président Macky Sall discours bi mooy. yéex na des sëñ ñu ngi koy jox wàccuwaayam. waaye dañ cee xaar nag loo xam ne mooy deux milliards cinq cent millions yi mu jox mbalaxmaan yi fokkat yi xajoon na ci rëbi na ba nekk suñ dëkk ci village fukki fan ak juróom amuñu ndox bu ko ci dugaloon képp ku nekk Saalum sa ndox jeex deux milliards cinq cent millions yi mu joxe nii su ko jëloon investir ko ci enseignants yi jàngale ak enseignantes yi dootuñu am problème deux milliards cinq cent millions yi mu jël jox musiciens yi su ko jëloon mu jox ko euh, mu jox ko daaray alquran yi dana ci am tiyaaba deux milliards cinq cent millions yi mu jël bu ko jëloon investi ko ci benn entreprise lu ëpp deux mille personnes dañ fa liggéey te li te ñu jaar ci géej gi matin deux personnes bu yàggul kon ñoom dañ ci liggéey defut ko deux milliards cinq cent millions yi mu jël ak fi réew mi toll fi mu toog xam naa ne xamut ne xam na ñoo xam ne tey bu ñu reeree dañoo leb cent jënd bu ñu ko defee am xamut ko. deux milliards cinq cent millions yi mu jël su ko jëloon tabax ci Mermoz gii wala Almadi gii ay jumaa mooy gën. li nga wax lépp boo jaaree Mermoz. Mhm. da nga dugg koñ ba koñ doo fi jumaa te dafa dëkk ay milliardaires lañ ay borom dara dafa dëkk. te est-ce que ñoom est-ce que ñoom am na ku leen wax ne leen jullit am na waxtu yu muy toog jullit ju ko ca mbooloo ma kenn du continuer ci lislaam ñaareel bi boo duggee Dakar kon bi nga xam ne fa la borom barke dëkk da nga fa dugg ba génn dafa gis jumaa wala jàkk te ñu ngi denc ay milliards seen compte yi. Eh, du loolu moom musiba la. yow demal almari ak bëri boîte ak bëri hôtel. demal ma mer muusa feneen ci biir ndakaaru fu ay borom barke dëkk xamul jumaa ju ñu xadara xamul kuréel jàng xasida te bu ñu deewee ñëpp ko imaam ba imaam ba da julli yàlla naan ki julli moo tax bari na imaam yoo xam ne ñu ngi jullee néew xël yomal xiyam dañ ko leer sama subhanahu wa ndax da ngay koo xam ne mënoo koo seetal ak jullitam koo xam ne doo gis ba ci benn yoon waxtu julli lu julli xeet bu julli xeet ngooy gis te xam na nafeq jullit noonu te julli xet bi julli xeet at ba at la nga gis ni benn benn yoon nga ko jiite la des doo ko jullee te alors que mën na nekk président wala sëriñ wala député ba yegg ci yàlla ne yàlla ne la naa la ne sa waxtu ju juróomi bu ko ko si biir néeg dara jóge amul ko war naa am nag xam naa ne borom xam-xam koy congé loolu ndax fokk mu ku koy wax koo xam ne wax dëgg ba noppi di jooy ndax jëme yàlla ci kese dégg naa benn kilifa ku ma ko ñoo amee xalifa ñes nee na hmm. nee na amee xalifa ngees moo ko wax ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu ndax émission def bu yàggul from fàcce xaw ma am na trop sama kaa gi bëri dañ ci yeewu. Mm-hmm. nee na pour nga gis président da ngay fay. kuy nee pour nga gis président Macky ah ngay fay xaalis. waaw loolu pour gis Macky Sall gëm naa ko. pour gis Macky da ngay fay. pour gis xam nga xam nga président Macky Sall rek. billaahi bu ñu waxee rek te yàlla tax mosoo koy dégg mu tontu nit mosoo koy dégg yow. moom kay li nga def lay wax. non président xam nga ci dara man ma jaaxal man li ma jaaxal. boolewoo ci wax de. <laughs> man Macky non yow taxalaat te yàlla tax bu ñu wax waxu waxu politicien waxu naan dafa fee ma la ma dama ci Karim Wade. président Macky Sall jël na ko ne ko da ngaa luwal alalu askan wi yëpp ko. kaso tëj ko ba mu sonn ay mbokkam jaaxle mu tegale condition jël ko génne ko bi xam nga loolu mën nga ne xam nga loolu mën nga ne Macky la mais ku Macky Sall la ci maanaam fi ko yàlla parce que Macky def maanaam Macky fa garaaw day dugg ci luy boo xam ne maanaam day tubal na da nga lekk alu askan wi comme mooy yow nekku ci yow yaa askan wi la ak justice ngay bàkk am gendarmerie police tribunal ñu lay renvoyé un an mu ne la ah, condition moo am naa la génne mais da bokk élection wala mu génn réew mi comme da koy wadd Khalifa Sall mi fi nekkee di gagné maire yi ni ko def ne ko jël alal yi fii maye fii ceeb ak nangam nangam jël ko teg ci kaso gi Khalifa Sall génn dama ko dégg mu waxati muy teg te pourtant bu la neex nga boo waxee da ngaa ñeme yàlla que argument yi ñu ko tegal ba teg ci kaso gi mënoo mënoo ne Macky Sall la seetlu ko maanaam maanaam maanaam Idriss mu mu fexe fexe fexe ba kidnappé ko andi ko tas na opposition bi. Sonko Sonko moo des te li tax mu bàyyi Sonko ba léegi nag am na lu tax ba Sonko ba léegi. mais gëm nga ne dina dina dina dina mën a am Sonko. ni non xam nga man Macky Sall man dootu mu ko mi ma dara parce que Macky Sall c'est le grand politicien. da ci loo xam ne ni moom du wax du taas te yow doo ko ci a taqal bu dee waa yàlla te ngay wax. xam nga yi yëpp képp ku ne Macky loolu ñaa nga wax. parce que dañu tuumaal ne la alu askan wi ngeen lekk kon yéen ak askan wi la yoon la xam nga yoon aussi xam nga ko moom ni def. wala ci wax ju bëri léegi moom wax ju ñaaw ji ngi wax yëpp bët bi set seen si internet bi ngeen tiitar Macky Sall mu ngi koy gis di waaw a Sénégal yaa ngi koy gis mu ngi ne teg waxu dara moom borom baax la xam muy teg waxu dara te sax bu ko neexoo réagir suñu kaw xam naa ne kon man moom xaar sax dañ xaar ci site bi mu lu mu ci def nga eh, est ce que est ce que yow loolu yaa ngi ko seetlu lépp mu ngi kuul kuulam xolal di xoolal di tas dëkk bi maanaam man maanaam man moom ban xeetu statistique politique la yor loo xam te li ma la lu jar bàyyi xel la. élection 2024 yi. Mhm. ku ci wax bokk ci moom mu dàq la. xam fu la ba dee nag. Mhm. wax dëgg di. kon foofu la ñu tàggatoo. acca tàggatoo guñ de émission bi dañuy dama ci bàyyi ma ma jeex ba tax ma pare. si suuf ba léegi yaa ngi ci àll bi war a ñëw def émission nga toog jaar fi nga jaar yëpp doog a ñëw. may ma may ma ñëw gu ma ci discours bi damay wax ci Macky Sall ni ni politique am. dégg nga. Mhm. ñëw ba ci coronavirus bi. coronavirus bi xam ay dix mille milliards xamu nuñ ko waxee jël ko jox ko mu def fii jox man soo fay fii gars yi fii cool yi bëri gars di wax rek. man li may jaaxal du loolu mooy lan moo tax ana tekk tekkaaral gi mu nekk te def li muy def. laaj nañ la ko. Ah, am na kilifa de Macky am na kilifa de. ndax nit bu amul kilifa nekk président jeune. lu ne nga di ko dégg lu ne ñu li koy wax ngay réagir ci pet na tekk tontoo kenn waxoo kenn neex ba neexul la mais loolu ñi ko mën te nekk kilifa yombut. Mhm. te loolu kilifa kilifa ko mën. ni wax dëgg rek. te nag wax dëgg ku kenn ko ku ne ci boppam la nekk ñu ngi ko xaar nag ci trente ci ci trente et un décembre bi. lillahi wala rasuli yi bu mu fàtte Saalum Saalum yi Saalum dëkk yu bëri amul courant. man mi wax ak yow. ak bawol bawol yi bu mu fàttee àll bi. na nekk Casamance. ñëpp na nekk bépp. waaw na dimbali ci courant. asal noonu bi rek. Mhm. dimbali leen ci ndox. na bu mu fàtte ci maçon yi maçon yi maçon. na leen bàyyi xel. bu mu fàtte itam nag. ambela may na ci kaw tali bi. yaakaaruñ dara loolu dul seen mos ñu yor di ci di di doo dépasse. nekk dafa lu la neex. ba un jour un benn dara. xeñ ko benn waay bu nekk Sandaga wala Colobane. di taaba taaba. Mhm. te alors que nag gënu ko ndey gënu ko bàyyi. na bàyyi xel tamit nag daaray alquran yi na leen bàyyi xel. billahi wal kitaab na bàyyi xel daaray alquran yi li muy investir ci inter ci ci ci ci euh, ci école France yi. Mhm. na gestu tuuti ci daaray alquran yi. waaw lu jar a bàyyi xel la. Mhm. na leen sóoraale. bu jël lépp bàyyi ko ñenn yi te na ci tam encouragement am. bari na ñoo xam ne ñu ngi foofu bëgguñu ko lu bëgguñu ko amul amuluñ ko njëriñ seen bopp lañ nekk. na fexe xàmmee leen. am na ñoo xam ne ni lu matériel ñu fen ko benn la. Hmm? na ba loolu yëpp na ko boole ci nit ku mi na ko bàyyi xel xam na timit ñoo xam ne nañ am ngor kon ñu mel ni Mimi Touré dégg na premier ministre ci àdduna mu ngi koy doog dégg ci àdduna Macky Sall tax mu dégg ko na am ngor moom Mimi Touré laa wax de na am ngor. na am ngor gu dee nii sant gërëm gannaaw yàlla ki ki ki tax mu njëkk a premier ministre. jërëjëf bàyyi ma na ko gërëm gis na taqali ko nañ moom mi turé émission émission bi laa bëgg ma une heure temps. yow loolu la Macky defal. laa ma Macky laay laaj lu mu lay defal. xam nga man lii yëpp nag Macky Sall. moom wala li ay xeeti dóor la. waa léegi. Cheikh doo ragalee président rek doo ragalee Macky da nga naan rek comme say morom graaw quoi. Cheikh yow seex yow ak ñi may seetaan bëgg ma wax ci Macky Sall lu ñaaw yéen yi ne ma bañ yéen nee na bëgg ma li ma wax ci Macky Sall li ma wax ci Macky Sall fen la wala dëgg la. sëñ Moustapha. déedéet Cheikh du la ma kontaan nañu bu dee nga ne ma dangay fen li nga wax ci makk yëpp nga ne ma sëbi du dëgg. gars yi ñoo jugé. nag nit ñi liñ bëgg ma du ma ko def de. bët bu set nga nekk fii dégg nga ma jàpp gars yi di wax lu leen neex boo léegi nangam loolu mu ci dugg du fula. kon ni ngi ñëwee ñëpp. di gërëm ñëpp di ñaan ñëpp jàmm. ñaan suma tool yéen ñaa yóbbu ñu ci année deux mille vingt et bi. amiin ñu fekk ko ay ati ati ati ati ati at. amiin lépp lu ci ñuy def lu baax yéen ñaa def ku ci waaye def lu bon yéen ñaa jégal la ko. médecins yi ci génnee son yëpp. yéen ñaa jégaleen son yi ñu génnee def ko tiyaaba xapp ko ci seen kaw ñii dem ci auberge yi ci baar yi ak ci euh, buwaadi di fecc yëpp yéen yàlla jéggal leen seen fecc mi ak seen buwaadi ci bëgg a ci dam yàlla yàlla jéggal leen ko lu am solo la jërë ngeen jëf